والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكي نغلين دينيو للن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته di leen dalal ci seen émission bi nga xam ne ñu toll woon nag di jàngale téere bi nga xam ne moo tudd du sixaar muy yóbbalu ndaw ñi ñu toll woon fi sëriñ bi di xamle kan moo bind téere bi moom mooy kan di santaat sunu boroom mi nga xam ne fu mu toll rek lu baax la koy defal waaye di julliwaat ci yonent bi di wax lu jëm ci mbirum téere bi di ñaan sunu borom mu def téere bi mu nekk tex ak ñépp tay nak ñu fassiyene tàmbali ci muqaddama bi manam maanaam njëlbeenu téré bi fi téré bi tambalé bismillah muqaddamatun lii lu ñu jiital la maanaam lii mooy njëlbeenu téere bi yaa ayuha sibyaanu yéen لا تشتغلوا بلن tashtaxilu عن الهدى لدل أنجب واشتغلوا تنين صغلوا بالعلوم تخيات خم خمية فاشتغلوا نين صغلوا بالحفظ كوات القرآن والتلاوة الجنگة وجتنبوا تنين تيت نين واتنكو majaalisa shaqaawa jataayi texe dika sëriñ mu ne maa ngi leen di laabir yéen ndaw ñi ngeen bañ a soxlawoo lu dul ak njub ndax ak njub mooy li amuk mujj ak njub nag mëneesu mëneesuta daw jëm ca te nit ki jëfandikoo wut xam-xam ndax xam-xam mooy li ràññeel lan moo di ak njub ak lan moo di ak réer kon na ngeen yittewoo xam-xam xam-xam nag la ca jiitu lu jullit bi war a xam mooy xam-xami yi nga xam ne dañ leen di woowe furudul ayn muy farata yi nga xam ne nit ki kenn mënu ko ko defal moom rekk moo ko mën a defal boppam lu ci mel ne julli ak woor ak aj màkka ak natt azaka ak yu demee noonu nit ki moom la war a njëkk a xam balaa muy jàll ci ya ca des waaye it yooyu rek du doy ndax al ibaadaat du moom mooy lislaam rekk lislaam ibaadaat la waaye muamalaat la nit ki fexe ba it xam naka la war a jëflanteeg doomu aadama yi fexe ba bañ a lekk seen alal waaye it bañ a bañ bañ leen a ci seenub der kon xam-xamub diine mooy jiitu mu ne na ngeen wattandiku na ngeen yittewoo it mokal alquran ndax man ko mokal ba sagan te mokkaloo sagan ba mokkaloo ko loolu ëpp def waye bu len cee am na ngeen di jang ngir jamo ko sunu borom mune na ngeen watandiko yit jataayu texee di maanaam bépp jataay boo xam fa toge do fa dolli ko ci walu yalla dara na ngeen ko jotaay bu mel noonu yi wala zimo na ngeen taqoog man ko xamne la yazalu du dañ aabida di aji jamu li rabbih nyal boromam qaidan tay aji wammate ila huda huk ca njubam ga mune na ngeen di taqoo koo xam ne kat jaamukatub yalla la comme nga xarit mënta ñak bu ngeen di xarito na ngeen xaritoo koo xam ne jaamukatub yalla la waye it mu doon ko xamne ne ku ko top rek dana la womat la ca njub ga mu nek fa kullu man kep ko xamne dara gaawe na waqta sixari ci waxtu ndawe wa ilal huda jëm ci ak njub istiraaxa kon mu noppalu waqtal kibar yi ci waxtu mage wa mu ne képp koo xam ne bi mu tolloo ci ak ndaw dafa farlu ci ak njub nee na kooku de bis bu màggee day noppalu ndax day fekk ak njub ay cëram miin ko nga xam ne dootul mën a tee wax lu dul ak njub waaye it dootul mën a defati lu dul ak njub mu mel ne ku dégg loolu te nekk mag moo xam ne dafa sàggoonoon ci ak ndawam day mel ne bu déggee lu mel nii day xaw a découragé wu mu ne déedéet bul découragé wu ومن تدارك كودا باتل الذي لنا خمني قد فات نكو من اللغا جنين وعمر تمدن الأوقات وقتها بالتوبة كتب النصوح قد بسيالاكن ولا قد أجي سيالاكن wal iqbaali akub dëgmal maanaam akub jublu ilal ilaahi jëm ci buur bi faaza kon mu texe bil kamaali ca mat ga nee képp koo xam ne nag yàlla da koo nattu ba mu tolloo ci ak ndawam dafa sàgganoon ba ak ndawam raw ko nee na kooku bu mu découragé wu na fas yéenee tuub jëm ci boroomam tu tuub gu sel moy la mu nekkoon mu bayiko te yalla rek tax te fasiyene yéene bañ caa dellooti ba mukk fasiyene nak di dundalat waxtu yi lu mu sankon ci ay waxtu rek mu diko dundalat neena koku na de texe na gu mat seuk ha kum jappelen nasihati samag lakum ñel len bu ngeen ko jàppee de fatar baxu dangeen ngeen tonawu ci àdduna wa uxra ak ci àllaaxira ma qawmin ànd ak aw nit aflaxu ñooñ texe nañ nee na laabire gi ma leen di laabire nag na ngeen ko jàpp nee na bu ngeen ko jàppee de da ngeen tonawu ci àdduna maanaam dangeen ngeen bénéficié ci àdduna ak ci àllaaxira te bu ëllëgee da ngeen ànd ak ñay texe kon loolu mooy njëlbéenub téere bi kon mbokk yi ñu taxaw foofu ba aljuma bii di ñëw ci waxtu wi incha allahu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi ci laay dooree di way daara ramaani moo dikki joor nga neel sëriñ daara ray mi mooma taxa jóg man di dem daara yowmal qiyaamate ñëppay xam lu dib daara